xam ko bitim réew keroog ca xew-xew boobu nga xam ni premier ministre président flamand belge ñoo ko présider dañ ko woo ba mu ñëw ñëpp jug taxaw tàcc ko kon Bafu collection xamal ni fier nañu ci yow bu baax a baax a baax a baax Bafu collection di defar ay tenues de travail de qualité ci norme internationale di defar ay tenues scolaires di defar ay tenues militaires di defar ay tenues pour hôtel yi ak école yi lépp loo xam ni dañ koy liggéey en série ba noppi defal la ci sa logo jàppal ci Bafu collection ñëpp ko ràññee waaye dañ ko bu dans le domaine des mines ci Sénégal ak ci sous-région bi yépp suñuy tenue confortable toujours suñuy tenue fraîcheur qualité 100 en coton Bafu Collection ngi Mining Sabadola Gold Operation AMS Mako Transport J ak ñi koy Bafu Collection Thiès zone industrielle woko ci 33 954 13 ou le 77 564 62 57 mail bafou collection hotmail.fr hotmail.fr bafou collection respecte les les de livraison loumoula la rek bafou collection ci qualité dong lay ligué

du ma ci ñetti kilo cinquante kilo bu mat sëkk laa fi démb ci guddi maa ñëw bëgg reer dugg ci cuisine bi fekk ñu raxas bool yi dëpp ko ma ne garaawul yeewu sa matin di xool sama petit déjeuner dem ubbi peñe bi ñu ne mburu mi yow yaa jël sarax ko taale bi am kilo yow lan mooy sa yoon yow da nga ñëw ci kër gi sëy si ànd ak sa grand frère muy sa topp pourtant dañu leen gérer nicement et eh, kër gi bul fàtte sama petit frère bi la tàkk mooy joxe dépense fii ci biir kër gi gis nga diñ koy toggalee añ di ko taaj noonu nga may toggalee añ di ma yakkal reer ba nga fii fekk comme ni nga koy taajalee sa jëkkër su ma yeewoo bëgg a ndékki lu ma neex laay ndékkee dinaa la wax benn mbir nag ba ba léegi maa ngi bàyyi mu sedd yaa ngi dof la ci kaw nit ñi méfie-toi Lopidor xajuma ci yow. Eh, pare. parewu ma. maa ko def maa xay. yaa tey. loo ci mën. lu ma ci mën. yow yaa ñàkk ko jom. yow ñàkk jom weesuwul nga taxaw fi sama kanam ba heure na lo ba sa tàttànk nga taxaw na jagd benn abajata ñeme nak ba dee taxaw na ana ndékki bi quel kilo yow ya kilo te te ñak jom demal nga wuti ji fo joxee dépense ñak jom wessu nga taxaw raamal sama rak mo lay jox dépense waaw sa rak mo may jox dépense voilà te dépense bob pour man la sama mak bi ngay wax di kalam la na mo bëgg nga ngaa wat ak mom keneen ku fi nekk calculé ma ko te dépense bu bokkoo ci gis nga boo toogatee wërate wala nga nalawate ba sa taat tàng ba heure wan na romb na du dërëx. doo def kii. d'accord xolal kii maay dogal. Mm-hmm. kër gi dëgg xool ma maay dogal. Mm-hmm. xool ma ci bët xool ma eh. xoolal eh. xam nga fee ngay fanaan tournel. ma fi nga teg sa loxo foofu rek la bu ko teggi sama xol sedd na trop ci yow gërëm naa la sant naa la gis naa ni ngay séyee ci biir kër gi. yang ngi normal ma jek jàmm ak to toog ci mbana yàq ci booli sama jek bi macha ben affaire rek nak la lay dénk bafu sama rak ji nga xamne daf ma bëgg yërëm comme ni ngay topato ge day ko ci bolé nak diko topato bu baax <laughs> lor mom na ci soxol set macha contane na trop cadeau yi rafet na macha yow sama xarit nga ndeysaan waaye xam nga waxtan moy indi wax sama jëkkeer ji di géey mm. chaque guddi benn moo bi la nekk di ko wax ci sama nopp yi muy sa doom ci ni muy entré góor ñi ak di sortir ma koy dégg di ko noppiwaale moom duma ko def moo tax ma wax la ko ndax loo rafetul daram baa ngi bëgg a yàqu ñëpp a ngi koy ngawti ngawti te yow bonoo mu warul bon damaa bëgg nag nga teel a wax ak moom mu bàyyi li muy def ndax loo rafetul jekkul yow loo sa dom ci di entrer gor ñi ak di sortir mom la lay yeggee ni pour nga wax ak mom <laughs> njuma no sant mu ne la yow deke mi kër nga ah? yow ma ngi lay paré guma sax nga naan ma sama dom ji hmm. sa yi nga ko teg ko tek ba mu set gis nga ki du tiaga man mi may ndayam yang may deg yow yow do nit ha ah? do nitu dara ndekete man de damaa dégg rek di la wax. yow damaa bëgg nga may ma sama jàmm nga naan damaa dégg di la wax. waaw baal ma maa la tooñ su ma dégg tey miix laay def. sa affaire la. waaw bu mu amati nag na mujj tey na njëkk tey sax na mujj tey foofu rek laa yem yow mu waay ndeke ak mii kër laa dëkkal fii ci kër gi yow ndeke kee sax la tane yow kee sax la gën ci prix. nga am audace ñëw ba ci man mi nga xam te ne nii maay chef de la maison nga am loo may wax waxutuma laa nga di ma déranger bu mu amat ñàkk nga jom torom nag fii maay dogal xam nga kër gi eh danga may dégg eh xoolal ma ne dama ne danga boo ma yuuxuwaatee soo ma yuuxuwaatee liy métti yow lay jóge dinaa wax benn affaire boo ma yuuxuwaatee dama lay noq ki lan la doon wax. amoore ki de deful lu nalo ba taram tang bu ñew fi ni nan ma ani ndékki bi ki war na ma lan heure bi ni ma dama ka amel ndékki est-ce que est-ce dama ka amel ndékki xam la bëgg nak muy mom muy magam ak sa loolu nga ne jabar la xawma dusak lan du sax jabar <laughs> mom mom du jabar xam la lan bëgg nañ ma may sama jaab bugguma ma nak la netari lepp heure bo demé fi lañ ñi nekk lu nañu jël ko ma lu nañu wax ma ma sama néeg bi di joy joy na bay bëgg dé bëgguma la wax dara na parce que bëgguma jax sa mbokk yaa ngi dégg nañ ma may sama jàmbur ñu genn kër gi abal ma ci biti parce que man dama sonno mënuma nak bi sey ci biir neeg bi bëgg a rayante ci biti mënu nekk dégg na la limay lijeenti suma hmm. su dina ko lijeenti tay mu neex dama nga dugg nga tëdd yàpp sa ñaam I love you baby nek bi te du neexoon na neexoon na dama la jaamu ñu ma jaamu maa ngi lay xaar merci yàlla defal la jaamu am am saxul te ñàkkit saxul lu la yàlla cëralee mooy sa wërsëg kër gi tàng na ku ne di tiitaroo xol yi jub na ngir alalu àdduna gis nga yow sa comportement bi laa bëgg a génne ci sama rakk kii elle n'est pas seule man magam laa te maa ngi ci kër gi te gis naa li ngay def moom nit day am fulla yow amoo benn fulla ñàkk fayda nag weesuwul nga nekk góor nekk ci kër di kaas ay ndékkeeg ay añak ay reer ak yooyu c'est dépassé tey boo amul beneen taxawaay kon dinañ la jox añ jox la reer jox la ndékki mais kenn considéré wu la parce que sa comportement moo tax ay jigéen nag ngay waxal parce que gi kër jigéen la mais man maa fi nekk comme góor di défendre gel yi parce que bëgguma ku leen laal te yow ku la seetaan ak booy yi nga sànq leen te loolu duma ko seetaan li la metti nag ñu teguñu la ko ma teguma la ko sama rak tegu la ko dan laa teggil nga wasaare sa alal yow tu as fauché bëgg rey nit ñi ak ay détails il faut nga arrêter loolu nag bon bii La la prochaine fois boo je fais ma toog kan may me déranger Je lay je beneen bi ci Je gis suis en ñi ngay mais Je ñi yow ci nga da me da je ci biir kër gi yow Je nga je expliquer li la wax ci sénégalais me kër Je ñu la nga am je expliquer que ça ne se répète plus je me la sa rak Guèye moo yëkkati responsabilité yëpp jox ma ko xoolal chantier yi sama loxo loxo teg dépense su kër gi maa ko géré loolu mooy dagg sa xol xamul tax mu def loolu parce que dafa am confiance ci man te amul confiance ci yow. lii de ci foofu laay rebondir gis nga sama rak Guèye moo ñàkk fayda di def loolu yéen sénégalais war ngeen xoolaat bu baax seen bopp en tout cas dafa mel ni yow sama sant nga yor ci kër gi nga juddoo fi nga màggee or que yow sa bu jigéen mooy sëy ñun dañoo sax yéemu ndax dañoo muri seet bi muri topp bi yaakaar ni jigéen la muy góor xam nga góor bu demee ba topp rakkam yow wàcc nga yow su la joxee ay chantier mérité nga ko yow suñu la joxee dépense kër gi nga koy joxe mérité nga ko parce que kër gi amul ñaari jeeg ñetti jeeg la bokk am ci nga bokk. gis nga yow xaw ma dangay makk yow xaw ma looy def nii mais sa umpaañ léegi la ma woo ci saal bi wax ma li nga fi nekkee. tek na ko nak place am mais yow ko ñak jom nga gis nga do ñak fayda ba pare ñakale ma fayda man gis nga dama bëgg kilifa yi di fi ñew nga sét si ku bax nga tànn ko sey ak mom nga bayyi sa mandikat bu bon bi yang may dégg bu bax lal bu bax sax munoo ko am yow sax war nga rus ak sa nijaay fim la tek ma danga ma woo ci waxtaan dinañ waxtaan ba mu neex xam nga nag yow lu la metti mooy da ngay échec ba pare bëgg ma échec loo te duma ko nangu. man mii waaw yow li fi def lépp fii la ma fekk lépp teg naa ci sama bët wante yàlla dafa def ni loolu ngay wax noonu mënuma ko am muy laal bi lépp c'est grâce à toi yaay greffage bu cher nga jënd. or bu rafet nga jënd te loolu yëpp sama xaalis lay jugee léegi avec ça tey nga naan ma da ngay toog di ma xas sax man dama waxul loolu sama sàmbaay boobu boo ngay tudd noonu moo ma leen gënal ñun ñëpp parce que bu dul dara bëgg na ma respecté na ma te xam nga lan moo la lan lan moo ma métti ci wax ji man xaalis yaay lan mooy xaalis lan mooy xaalis nit ngi am xaalis ba pare. te amul bonheur ci ci ci ci dundam man nag dama nekk koo xam ne dama nekk euh, femme de principe dafa am lu ma bëgg topp ma xaalis li ma bëgg moom laa bëgg ba tey ba suba moom laay bëgg. Ah. mënu ci dara. Ah. du damay wax ngay jaay rëy làmmiñ su ma waxee ñaari baat ñett rek nga yëg sama kaw bopp bëgg ka daj li ma la wax nag di nga ko def yaa ngi may dégg bu baax doo ma yeblu yow ku ma yaay ak doom nu mu jege tey waroo maa dugal ci lu may lu may loroo fekk yow toujours waxu xaalis nga may wax toujours wax waaw bu fi ministre di ñëw lu sama yoon man et eh, tour li ma la wax ngay def point booy mesurer sa langage te xam li ngay wax ak man Guèye suma rakk la man ci suis son grand frère yamal ci sa petite sœur bi fii sëy nga yem foofu xaaral ba ma laaj la café wala mburu leer na non leerul am lu ma lay leeralal yow vas-y te de trompe toi Guèye moo ma fekk sunu kër jël ma indi ma fii ci kër gi pour ma koy gérer yenn responsabilité yi non sa rakk bi muy ñëw ci ceet gi mais yow li ñu muur naa daal moom booy waaw loolu sa xalaat la j'étais là non maa ci kër gi dew loolu sa xalaat la bu góor beneen bi ci tegu mooy affaire violence yi ngay wax nii di ma ci woo du ma la ci fekk parce que boo ñàkkee dangay ngay violent te yow da ñàkk gey yaay magam de mais tay moy sa mag parce que bo yorul xalé ngay doon man nak dama nek sama yoon di doxal yow da nga tok ben place to do dem. yëpp rek gey la bokki mom su yabee gaynde rek ci doxi bi mais nak du fi nek di koy metti lu ak di joy de damay lu nek ci bir keur gi di bax bax lu bo génnee ci biti di bax bax lu bàyyi say mak ñu melni immeuble ci keur gi ay top ñew di len joxar bi dama damay mais metti quoi

di sunu taw yaay ñu bokk benn ndey bu ñu jur bafu mii ñu bokk ndey ak baay muy sama mag damay commencé nag sa commencement ba man muñkat laa te muñkat laay mu sa doon doon na ko man maay caatu kër gi fii la sama yaay dëttu dajale lu ñu ñett ñëpp ci feebar mu ne ñu kër gi buñ ko jaay na doon këru ndono ku riir yi ñëw fii yéen ñaar ñëpp ngeen teg ci seen tànk bi sama yaay tëddoo ñu nanu jaay kër gi woo suñu mbokk yëpp dajale leen ñu ne kër gi dañu bëgg ñu jaay ko mu doon lu met loolu ma fekk si leen nag ñu dem ca notaire ku nekk ñu notifié la yow bafu lan nga waxul dama bëgg tukki nga collaborer ak benn waay jox ko mu wutal la visa keroog bi ngay dem su ma rappel wàccel nan la kaamil fii si kër gi ñaanal la nga daal di dem bi nga demee moins de un an sax ñu reflé la nga ñibbisiwaat bi ngay indi wo dërëm loxay neen nga fi dugg mané ma ni duma la sétan sama mag nga mané lo lo bëgg def grand nga ni ma taxi la bëgg yor ma jënd taxi bu bees tak jox la taxi bi ba légui nii kenn xamul no def taxi ba na nga jék jék gis la nga ñew tok fi ci kër gi di dem ak dik, di tok ak naan ataya mom nga fi nekké Mariama biñ la joxé sa xaliss nan nga def yak sa jëkkeur nga and dem Congo ak sa dom to bi ngay sëy sa jëkkeur fi sa jëkkeur chemise bu rafet bu mu sol ya ko jënd jasneer bu rafet bu mu sol ya ko jënd te mom mo la ko defara ya yow bok koy defara nga dem Congo ubi fa restaurant lu ulingoyo, li nga yor mu ni ko tungat lek ko Tak benen jabar abandoné la fassé la nga jóge Congo and ak sa dom nga ñew ma fatat la yow ak sa dom man la yéné sama taw yaay amuleen lenn lu ngeen di def dudul sonal samay jabar bi ngeen ñewé na ngeen fé fék ay jeeg yo xamante ma leen jëlé seen kër yaay indi leen ci biir kër gi ñu respecté ma yow yaangi ni amul loy kulo ak samay jabar su ay ndékki ay reer fourchette bi dafa dam cure-dent bi gisumako yoy ngay xulo yefi jigen yoy yefi gamin yoy je suis vraiment désolé dama muñu muñ ba son yow niki ki togg na ba ñunug nga ni ko teggil li bëgguma mu boole li mu neex ak la naq di tegg ko maa ngi au courant de tout dama noppi rek ndax kilifa day jékki-jékki di daal di bàyyi du chaque jour lu war a wax wax tay nak wax dafa jot dama bëgg samay jabar ga respecté leen nak ci suba ni ma la fekkee ak sama jabar suma ma ñëwul woon mën nga dal ci kaw lenn nak naa leen yëgal na ngeen ni mëna tok ci kër gi nak ngeen tok fi respecté samay jabar mëno leen ko la porte est ngapement ouverte euh, kon yow sa wo bi ñu wo ñu ñëw tok ni li nga ñu doyee yow nga ne kilifa nga say biir wax kilifa bu sonnee dafa sonn yow kilifa nga yow yaa ngi mesurer say paroles yow ma toog sama grande sœur toog nga naan kilifa et puis booy mënoon nga ñoo bañ a woo yow jarul nga ñuy woo réunion de famille gis nga lii soo ma ko audio woon sax amul problème dama koy accepter yow faj sa mag tout le temps maa leen fab fi laa fat li ma bëgg mooy am et tout ça yéen yow li dëkk bi di wax dégg nga ko yow yaa takk sa aaw bàyyi ko fii muy sonn guddi ak bëccëg nga dem takkal ko deuxième femme mel ni góor gu woddu li nga may bañal di ko bañal sama mag ji moom nga nangul grand frère am sàmbalaar nga jël ay chantier xañ ma ko jox ko ko jël dépense jox ko ko su may kaas samay mburu ndekkeeg ceeb bi saful xorom lu ci yoonam. Eh, yoonam nekk na ci ndax moom moo ma déggal. xam nga yow la non dafa nànk moo la. Eh, dafa ma déggal su ma ko yónnee mu dem. su ma chantier yi moo ma ko gérer yow mii tey su ma la joxoon ni la am defaral ma lii doo ko def. xam nga la la parce que tu es xam nga la la bëgg a xamal man je suis méchant mais waa d' accord d' accord mais man nekkuma nit kuy jaamu ay nit. wala sa mbokk bi nga war a defal doo ko defal di dem di defal mbokku jàmbur te prochaine fois boo ma woowee di hausser la ton. yaa ngi dégg damay dal sa kaw man du ma sa morom Europe bi ngay wax ay damaa dem Europe def fa un an d'accord sama xol moo rafet sama moroomu jullit laa ko fekk mu eh, sonn ma éverse ko soo nekkee fii yeewu treize heures bëgg a dem fee naan na ngay liggéey c'est pas vrai Europe kuy liggéey six heures du matin moo fay dem yow tu n'as rien compris kuy yeewu six heures du matin moo fay dem dama la respecté bàyyi ñu di waxtaan ngeen aussi le temps man je suis pas mu son morom am teraanga du tax nga bañ maa respecté bi ngay wax dama laa déglu dama la man sama dem Europe du sama ñàkk fayda bu ma fi indiwul dara sama moroomu jullit laa gis héberge ko ndeke da doon jaay drogue. ñu jàpp ko loolu say propos ma ñëw loolu say propos parce que moo nekk waaye non léegi nag beneen bi ci nekk xam nga lan la yaa ngi ñu indil sa deuxième femme ñu accepté nga indi topp bu góor jël lépp daal di koy jox loolu amul problème beneen bi ci topp bu ñu waxee nga naan da ngeen di mën a dëkk ngeen dëkk soo leen mënul dëkk la porte mais ce sont mes propos ouverte eh ce sont mes propos waaw say propos dem non man loolu man. Eh, eh, eh. may ma yow may ñu suñu jàmm yow balaa maa dee nga ni sama kër sama kër yow lii lan la ay fàttee gaaw yow sama yaay man mii la la dénkoon ma di la toppatoo mënuloo woon sa boppu dara kaye sax danga ko daan juutal ma di la redressé di la redressé ba tey nga nekk kilifa ngay am loo may wax. boo ñàkkee fayda ñun ñaar ñi ñàkkuñu fayda yow jigéen la jiital ñun nag jigéen duñu jiital sa aaw bii ngay ñàkkal fayda nga xam ne màcc na fi xorom yey fi kaani yow ñàkk nga fayda de te ñàkk personnalité na njëkk tey nag na mujj tey nga ñuy teg fii réunion naan dafa am loo ñuy wax yaa ngi dégg bu baax sa kër nag nga wax ñu génn ko dinañ ko génn. non waxuma leen eh, damaa bëgg nga may ma. damaa bëgg nga may ma nga bu maa yàq. mosoo maa yab du jigéen a tax nga may yab gis nga baf fii kër la ñuy jaay gis nga man fu ma nekk yow mën nga fa nekk. leer na yow jógal. wuy ma man génnewu ma la de. man sama yoon newu génnewu ma ci kenn. Ah. li may wax wax naa ko ba pare. voilà man xam naa leen voilà. yow tu es un vaurien man je je réitère mes propos sur toi. tu tu n'es rien mais waxuma leen ngeen génn kër gi. waaw kay. am am saxul. Tenyaki sahul lula lu la yàlla cëralee mooy sa wërsëg kër gi tàng réew mi ku ne dégg na Bafu collection te ñëpp am fierté ci Bafu collection ndax liggéey bu mucc ayib bi nga xam ni moom lay liggéey di entreprise boo xam ni dafa spécialisé wu ci couture industrielle bu lay defal ay tenue en série la koy def en 2016 Bafu collection Exchange Belgique dafa ñëw woo ko jëlee ko Sénégal yóbbu ko ba Belgique daal di ko ne kontaan nañu ci li ngay liggéey tappal ko médaille ne ko li ngay liggéey qualité la kon Bafu collection sa liggéey xam nañ ko ci aduna bi xam ko bitim rew keroog ca xew-xew bobu nga xam ni premier ministre président flamand belge ñoo ko présider dañ ko wo ba mu ñëw ñëpp taxaw ko kon Bafu collection xamal ni fier nañu ci yow bu a baax baax Bafu collection di defar ay tenue de travail de qualité ci norme internationale di defar ay tenues scolaires di defar ay tenues militaires di defar ay tenues pour hôtel yi ak école yi lepp lo xam ni dañ koy liggéey en série ba nopi defal la ci sa logo jàppal ci Bafu collection ñepp ko ràññee waaye dañ ko ragné bu baax dans le domaine des mines ci Sénégal ak ci sous-région bi yépp suñuy tenue fay confortable toujours suñuy tenue fay àndandoog fraîcheur suñuy tenue fay oyof té nek ci qualité ñu confectionné ko 100 en coton Bafu Collection ñi ngi gëreum ay partenaire am Endeavour Mining Sabadola Gold Operation AMS Mako Transport J ak ñi koy gungé ñëpp Bafu Collection Thiès zone industrielle Wokoti ci 33 954 13 15 34 wala 77 564 62 57 mail bafou collection arobase hotmail point fr bafou collection respecté ay délai de livraison lu mu la wax rek takku ko téere bafou collection ci qualité dong lay liggéey.